salaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu ñëpp surtout internet yi seetaan euh, Télé Sénégal di kontaan bu baax di leen wax seen doom seen xarit Malcolm euh, ñëw tey ñu war am benn waxtaan bu ndaw. Euh, bon avant tout je dirais que ni am nañu ci bàyyi xel mais juste que ce qui reste mooy côté communication ak tamit cër bu bu bu bu mat buñ leen war a jox parce que booy séddale da ngay da ngay da ngay tolloole bien vrai que suñu dëkk. bokk na ci sport yi ñu gën a ràññee muy làmb ak football mais tamit dafay am ñoo xam ne dañu ëpp ci li ñuy indi ay raaye mooy ay coupe ñooñu la ñu war a gën favoriser te bokk na ci arts yi bokk na ci basket bi bokk na ci beach soccer bi ak tamit yeneen xeetu euh, aar yi nga xam ne euh, ci côté sport ñoom ñu koy def mais je dirais bien que afro basket li ñu war a gën a miser saa yu ñu ko waxee rek suñu xel day dem ci Sénégal dina yegg final wala mu jël coupe c'est-à-dire bu jëlul coupe rek bu jëlul médaille d'or mooy jël médaille d'argent donc il est temps ñu jox leen cër bi ñu war a am euh, defal leen panneau yi defal leen lépp li ci aajo. pour ñu gën leen encourager parce que dafay baax nit buy sonn pour yow yow tamit da nga war a sonn pour moom. c'est déjà dit comme ni ma ko waxee sànq football lañ gën a <laughs> loolu <laughs> et euh, man bëgg naa football trop respecté naa leen trop mais je bien que. ñi dañuy sonn pour indi coupe ñoom ñëp coupe moo leen tax a jóg mais li basket indi coupe kenn mënu ko compter il est temps sénégalais dafa bëgg nëpp nëppal wala sutural yenn affaire mais il faut il faut cest il faut ñu briser la glace en deux mois yi leen ni basket dañ leen war a jox cër. comme beach soccer nañ leen waree jox cër ñooñu bokk na ci li ñuy ëpp li ñu indi coupe fii ci Sénégal da gis koo xam ne judo lay def wala karaté lay def bon bu ñëwee Sénégal day toroxaat nañ ko gën a joxaat cër sport bi bu ñu sonn pour gouvernement bi ñun tamit dañoo war a sonn pour ñoom nekkul rek ci kaw comme nekk ministre sport wala keneen ak keneen mais même artistes yi j'ai remarqué football bu jotee kaan euh, bi wala coupe du monde mais dañuy def ay clip dañuy génn ci mbedd yi def ay fan zone bien vrai que corona oblige mais dinañ toog seen kër yi def selfie wala et cetera ñu def yu mel noonu page yu ko mu nekk fii ca Sénégal wala yeneen ci ay affaire du TikTok affaire de fo ay kii moo gàddu buzz bi ay diw xar na ngelaw la yooyu la ñu nekk mais li ëpp solo duñ ci nekk moo nekk di leen encourager ils en ont besoin ñoom amul lu dul ñun ñun amul lu dul ñoom ay doomu Sénégal lañ nekk bitim réew ñu ngi Kigali ñoom fet li ñuy def pour ñun la nekkul pour ñoom ñoom bu ñu ko gagné pare mais satisfaction bi ñun ñoo ci ëppale donc il est temps tamit ñun ñu encouragé leen bu ñu taxaw rek suñuy ruqu def ay photo xam nga li ma la wala def ay vidéo am ci ay milliers de vues am ci sa xaalis li gën a bon mooy artiste boo xam ne da ngay ci nit ñi te nit ñi mënuñ dund ci yow amul leneen loolu mën a teewale donc c'est c'est dommage c'est c'est comme ça le Sénégal mais il faut que ça cesse maintenant on ça ministère bee nañ drapeau national bi jox leen bu fekkee subvention génn nañ jox leen am na lu bëri loo xam ne def nañ ko communication bi ci bi ci war man indexé man du ma nit kuy taxaw di bëriwul sax ci samay reportage bi ci gouvernement wala si affaire état affaire yu demee noonu non mais je me dis ñi ko war a def muy ñun lu tax chaque jour ñu wax Sénégal gouvernement gouvernement gouvernement wala ministre ministre ministre léegi ñun nag ñu am na ñoo xam ne Sénégal ñu ngi ay page un million wala deux millions abonnés la lañ ci dugal ay fo ay caaxaan du ñu mës a taxaw pour kaasal seen culture seen religion wala seen sport wala dara jamais seen bopp lañ fi nekkal dugal benn photo wane montre wala daal bi ñu sol am ci un million de vues récupérer seen xaalis ci ci ci gi après dem après yow mi koy suivre tu deviens que bon benn dof lañ lay jàppe lu ñu dugal nga like lu ñu dugal nga commenter te yow c'est-à-dire li ñu def amul benn njëriñ il est temps que ñu jublu ci fulla fayda mu ëpp solo. nan ngay nan euh, ngay euh, wax ñi nga euh, ñu gën a farlu ñu bañ a décourager aussi. ñu gën a farlu benn pourquoi parce que boo yoree ñoo xam ne chaque année Nigéria sax daf ñuy bàyyi xel ango c'est-à-dire dëkk yi gën a mag ci basket dañ ñuy bàyyi xel nañu gën a farlu ñu bañ a complexe kanamu ku nekk j'ai j'ai remarqué récemment que euh, ma leen di félicité Boniface ak équipe am bi ñoom Maurice ñoom Ifay ma leen di nuyu de passage ak euh, yeneen gars yëpp j'ai remarqué que ni ñoom dañoo jàppee ni ñoom dañoo dañoo nekk préparation coupe du monde déjà lu loolu état d'esprit bu baax la ci américain yi lañ ko doon gisee gis nga doomu américain boo gisee day foog ne moom moo gën ci gaay yi esprit de supériorité la baax na baaxul mooy dafa gëm boppam bu bëri donc fédération bi il est temps mu farlu ci boy wan leen ñoom dañu war a gën a góorgóorlu tamit ñu ñu encouragé leen moo ñu bañ a baisser les bras cest dire ci suuf lay commencé maa ngi ñaan yàlla fédération bi muy muy muy gëstu booy nekk ay ay Tamba ay Mbour ay Ziguinchor am na ñu fa ne ñu mën a basket. ñu amul chance rek seen parent yi dimbal la ñu ñëw dakaar nañ leen di gëstu nañ leen defal terrain noonu la ñuy demee di demee di dem ba basket place bi mu war a occuper mu occuper ko. ñi fi ëppale coupe bokk na ci euh, basket bi mais ñoom la ñu war a des fois ñoom la ñuy a soofantal da nga leen gis des fois tasante ñoom ci embouteillage wala dara mais dayo bi ñu war am duñ ko am donc nañu miser ci ñoom. nit encore une fois bi mooy troisième fois mu ngi koy wax maa ngi koy répété mais nit bu sonn pour yow dafay baax tamit nga sonn pour ñoom. mais indexé wu ma benn yoon gouvernement indexé wu ma benn yoon ay ministre non kooku benn nit la mais ñi may indexé mooy comme par exemple là nit ñi nga xam ne ñu ngi nekk di ma seetaan et j'en suis sûr que seen yoon nekkul ci partager wala wax aller le lion wala dara dañuy toog rek mais une fois que Sénégal perd vous allez voir ñëppay dal seen kaw di leen sonju di leen di leen wax lu nekk te pourtant encouragement bi mu jotee kenn defu ko c'est dommage que tey mu nekk benn Malcom moo koy xam te c'est il n'est même e pourtant, il y a des 500 000 abonnés, il y a des 2 millions, il y fula nañu dafa nekkee ci dëkk defar dëkk bi participer ci dëkk bi am yar am teggin am bon comportement moo ko gën. loolu nag peut-être lu sa doo toog <laughs> li mbëri naa Modou Lo <laughs> li naan eh, toog ci télé yor yor micro di wax waaye dafa yomb waay mais tamit dafa yomb tey mu téye micro rek di wax ni en fait su ma wax dama lu ma maîtriser lu ma xam. suma xamul dama naan xaw ma amul benn télé bon man j'ai j'ai vu que ni la chaîne nationale teg teg ko rts teg na ko bien vrai que premier jour bi tegu ko woon xaw lu tax xaw ma lan moo tax je sais pas problème technique la wala dara mais euh, lii yoon mooy plateau yëpp nañ ci waxtaanee chapeau à la à la 2STV euh, je je dis chapeau à la 2STV pourquoi parce que dama seetlu saa yu basket amee même ci ndaw ñi ah ay duc UGB affaire yooyu noonu dañ koy teg en direct c' bien c' est à féliciter na ko na ko 2STV continuer na ko RTS continuer na ko TFM continuer RDV na ci ñëpp jàpp billahi gis nga suñu dëkk bi ñoo ko moomal suñu bopp sport bi il est temps ñu mise ci yàlla dafa dogal Sénégal bu cinq jotee boo gisul kuy pédican ñu ngay ci géej gi entraîné jigéen ñi sax léegi ñu ngay sport sport yàlla moo ñu ko jagleel nañuy góorgóorlu di ci dimbalante moyen man gis nga li tax ma ma nangu interview mooy moyen boo mënti yor c' est bien pour pour pour pour nga participer ci te tuddal tey benn benn collègue nga nekk Instagram amoo sax amoo sax dix abonnés mais au moins dugalal nga xam nga nga def aller le lion wala yàlla ndam bi ñëw c'est-à-dire yow participer nga wala toogal nga julli nga ñaanal leen mais mais c' est dommage au Sénégal li ñu gën a remarqué mooy bon dañ lay soofantal quoi c' est dommage dañ lay soofantal après nag boo demee ñu ne waaw diw ku baax la woon wala sonn pour équipe nationale après c' est trop tard c' fois quand le Sénégal a besoin de ses jeunes quand le Sénégal a besoin de ses artistes il est temps que gars yi di génn du lu jot rek ngeen def ay clip bu écotrip man maay di man maay nanga man non non non na ñëpp man aw ma ci du question gaan wala dara ku mu ci mënti doon artiste bu mu ci mënti doon Viviano Dibo Arlou Birigo et cetera il est temps gis ngeen li ngeen clip yi ngeen def c'est bien beau mais quand le Sénégal buy qualifié challenge bi bon dama ko bëgg a njëkk a lancé ngir yàlla fekk si leen ma te boole ma ci fekk si leen yéen a ma ci ëppale parce que yéen a may ëppale vue mooy chaque année wala chaque compétition nañ leen def challenge ku ëppale wala ku gën a naaj li clip pour encourager Lyon basket football beach soccer arts martiaux wala et cetera. il est temps qu'on fasse ça. seen match bi ñu war a am tey bon non bon gis naa gis naa Boniface mu wax benn affaire boo xam ne <laughs> c'est tellement américain j'avais pas l'habitude de voir ça mu ne euh, euh, le plus difficile commence euh, c'est maintenant si su ma juumul n'est-ce pas. man j'avais pas compris mais bi ma ko liiraatee mu ngi wax gars yi ko li ngeen di gagner yëpp bon ñu ngi ñu ngi quoi. c'est-à-dire le plus difficile c'est maintenant ñun daanuñu gis loolu Sénégal même ci football remarqué leen bu ñu dugalee benn but ma ne la dañuy yaakaar dugal nañ quinze buts ba fin temps ñu dugal ñu ñu doog a xoole xoole mais Boniface def na leen li gën a metti léegi lay commencé Boris Ndour euh, Maurice Maurice gis naa ko mu wax lu am solo mu ne nee na défense yi ñu doon def baaxul pour pourtant Sénégal mooy gagné mu ne défense yi baaxul kon kon kooku c'est un kooku il veut plus nee na il temps ñu defaraat défense bi Maurice comme ça qu'il faut fay dama gis deux premiers matchs yi il était très fort en attaque tout le temps il était en attaque mais match bi mu en fait il s'est rattrapé à chaque fois que euh, euh, mu perte balle bi da ngay gis benn benn ni muy synchronisé moom ak euh, kii Gorgui Sy Dieng dafay revenir en défense jël balle bi joxe ko keneen gis naa mu def ko ak tamit moo fay ça c'est bien c'est ce qu'il c'est faut faire am nañ entente déjà je vois que parfois euh, défense zone yi mu ëpp li ñuy li nga xam ne moom la ñu koy gagné parce que bu leen fàtte ne ndaw Sénégal yi euh, yàlla daf leen may physique macha allah tir à trois points moom mosoo nekk suñu problème wala bu ko ñëpp di mais ren dafa changé seetlu leen ren avec l'arrivée de Henry ak ak ak Badio ak yeneen boy dafa changé les tirs à trois points dañ koy assurer c'est comme ça noonu rek lañ ko war a mën a defee donc chapeau à eux ñu continuer défense euh, def li ñu war a def man de wax dëgg yàlla sama loxo ci kaw bu ko benn page deful bu ko benn artiste deful je vais continuer te kuma ma ci soxla interview pour ay affaire de ay ay carrière ban série nga joué je vous dis maintenant pareguma pour benn interview mais ku ma soxla pour Sénégal actuellement ni pour ci côté Lion de basket je suis déjà disponible li laa war a suuli artistes jàppale leen ñu quoi on en a besoin moo gën dem di dóor wala ut ci xaalis wala la mais tout le monde tout le tout le monde mbalax maa ni commencé ki gën a ndaw ba ki gën a ci kaw ba ci gën a nekk ci suuf ñoom ñëpp laa wax ñoom ñëpp laa wax artistes yëpp laay expliqué fa du du du mbalax maa ni kese ñoom ñëpp lañ rappeur yeeg ku mu mënti doon comédien yeeg kii commencé kii yàgg am na page yoo xamante ne si vraiment man moo tax barki yàlla il est ñu changer ko a ngay gis nit ku lay nax nga koy nangu da ngay gis nit ku lay nax nga koy nangu donc il faut ñu changer. bon ci côté artistes yi nga wax lan est-ce que ñoom laa indexé xam xam nga ñun ñëpp ñoo far nit di nga bokk moom ndey ak baay ngeen bokk benn famille ngeen laale bu baax parce que lu yoon la. mais bu jàllee jàll na actuellement il faut ñu waxante dëgg ngir yàlla gënati bi artistes yi génn def ay clip def ay featuring dem naa dëkk dangam am naa kóol buy jaar c'est ça nous importe peu. c'est très bon le son c'est très joli clip bi ñu teg ko tale ñu gis ñu écotrip def ay drill xawma nangam a nangam mais li ci ëpp solo Fall mooy na nga teew pour sa dëkk. pourtant budget bi cherul solal benn maillot équipe nationale yaa xam koo sol baax na taxaw ci benn terrain basket remercier leen encourager leen wax na ñoo mën comme ça yeneen dëkk yi kat dinañ xam ne ñu ngi sonn ci ñoom mais chaque jour rek son yi ñuy def pour ay dóor la way naa diw dóor naa am na ci xaalis kañ ngay way pour mu nga développer sa dëkk gis nga ni ñuy fontoo nii ba yeneen dëkk yi di ñu raw mën nañ def noonu tey ba Guinée sax mën ñoo parce que dañuy gëm seen bopp mais sénégalais lu nekk ci maane yëpp mooy dóor dóor dóor dóor dóor dóor clip football rek wala benn Sadio Mané may la xaalis euh, basketteur am nañ xaalis mais léegi même bu dee dóor léegi way leen ngeen dóor donc il est temps que loolu ñu def ko man but soccer keroog bu ma ko doon sitaan fii ci kër gi fi mais ku ci nekk am nga lu la metti parce que am na loo xam ne sañuñ ko wax et j'en suis sûr que fédération bi di ko wax mooy ci côté arbitrage pourquoi équipe nationale but soccer bu génnee am problème lu tax mais parce que duñu kaas c'est ça la réponse duñu kaas duñu kaas gars ay jàmbaar lañ le gardien il s'en tellement ba jour bi mu joué wul jooy nga xam ne kii jàmbaar la dafa am ñoo xamante ne si dañoo aajowoo ñu leen di dimbali li laa war a suuli kuy dem booy jooy parce que dañ laa génnee kooku kooku bu nekkoon ci terrain bi kenn du ko dugal encore une fois nañu il est temps ñu changer net affaire yu bëri changer dafa jot mu changer après ñu jublu ci leneen noonu rek la sinon booy du ñu am encore kenn du am encouragement bon da ngay ne xaar naa dem jouer ji Chine wala Japon ah wax nañ dëgg c'est comme foofu lañ leen di joxee fulla ak fayda kay nañ fa dem mooy loolu donc na artiste def son wala ñu def clip ah di di jaajëfal ñi ñu doon seetaan di leen wax ni lu ci dëng ngeen comprendre ma parce que nit matul te te ma waxee xol lu ci jub yàlla moo ko taaral euh, di wax ni euh, coupe du monde baa ngi ñëw Sénégal bokk na poule euh, je pense ak Rwanda si je me trompe pas quelque chose comme ça yenn bon su ma juumul mais en tout cas am na yenn pays yu muy joué yoo xam ne bokk nañ déjà buñ leen jël comme cible. ñu jël nañu nañu concentré wu ci nan lañ def pour gagner États-Unis wala Espagne wala France parce que ñoo nekk tenant titre yi di wax jigéen ñi préparer ñoom tam seen afro euh, faut tout défoncer euh, sama sama sama benn xarit boo xam ne dañ doon basketandoo muy seen Mamy Sène maa ngi lay nuyu bu baax di wax tamit Yacine Yacine la grande star euh, di ko wax ni ndaanaan nga di wax équipe nationale basket jigéen bi yëpp préparer leen préparer leen yéen leen mën ay genn ngeen songu leen daan leen jaxase leen et puis fëgg leen seen dënn wax ni da ngeen a bëgg benn match amical ak waa États-Unis wala Espagne wala France why not fédération sénégalaise basket wax jàngoog équipe nationale Sénégal basket góor yi ak jigéen ñi tëggal leen benn match a gars yi ci kaw ñu songu leen dal seen kaw incha allah man Malcom boobaa bu ñu ma jox autorisation ma rassemble ma rassemble artistes yëpp ñu dem seetaani dañ leen di dóor dañuy jàll seen kaw waxtu bee jot Sénégal ñoo fi mën loolooy dernier mot bi merci à toutes et à tous Sénégal Malcom Comedy À la prochaine, Inch'Allah.